mu am benn affaire une heure du matin ñu ne dafa am ñu may seet ma ne ah ñoom ñoo may war a seet waaye ñu ne dafa am ay ah, homme de loi yi fi ñëw jëla seet ma ne lu tax ñu ne ma parce que en deux mille dix-huit da nga amoon benn contrat boo signé woon xaw ma 2019 ak benn promoteur X j'ai pas besoin de citer son nom man fàtte naa ko sax ma leen waaw may xalaat di xalaat ñu wan ma contrat ma leen ah way lii maa ko signé woon alors biñ koy signé ñu ngi ko signé ci ay clause yu leer nañ naññ nañ naññ ñu bind ko en bonne et di forme le gars yi devait verser un montant de quatre cent millions lu ko jëmee ci Gambie ak Bercy joué Gambie comme ni may defee Gambie def Bercy ñu bind ko mu ànd ak équipe bam ñu ñëw ñu am ay témoin mu signé alors il s'est trouvé que mu ne ma dafa am ay partenaires et puis en plus fii boo ñëw génne xaalis ci banque bi il faut nga wan leen këyit bi tax nga koy génne ma ne ko ok mais du ma la mën a jox kayit bu ñu bind noonu tant que amul dara lu ko symboliser sama manager ñëw ñu koy wax fantasy bi fii ci Gambia mu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak équipe am topp na ci ñaari fan di daw billaahi wallaahi wa après ma xool mu nekk jeune bu bëgg liggéey ànd ak équipe am te it ma xam ci benn jigéen ko xamante ñu koy wax Anna ji doom ci Fatou Ndiaye ma ne ma wàlle jàpp ci ma ne ko amul problème bi mu ñëwee mu génne dix mille euros def déposit ñu bind ñu ne joxe na dix mille euros déposit mu ngi dem wane këyit bi ñu ko bindal ak partenaire mi ak banque bi débloqué xaalis bi comme sax ñu mun a am prétexte mu mun a am euh, li mu wane pour ñu defal ko virement ak sponsor yi mu wane ba ñu bindal ko ñu ci këyit bi ne ko dinañ leen wan kayit bi léegi bu soobee yàlla li ma li may wax dafay leer ñu bindal ko ci kayit bi ne ko dans deux mois su fekkee cent cinquante te quelques mille euros bii nga war a verser pour acompte Gambie verser woo ko contrat bi dafay nul li nga joxe da koy perte mu d'accord ko ànd ay nitam ñu signé alors. 2019 ñuy toog di xaar waa ji tey suba tey suba tey suba waykat boo ko xasee ba tënk ne ko date bi jël naa ko maa ko moom alors yow pénalisé nga ko soo ko jëlul afat moom nga yàqal boo ma jàpp ni peut-être ma ko joué xëy na wala booy xëy na dafa nekk ci tolof tolof léegi Wally Seck ñëw na Gambie ñëwati Gambie ñëwati Gambie ñëwati Gambie lu bari yoon un bon jour ñëw ne la ok da nga war a ñëw dafa am dix mille euros bu ñu la joxoon nga remboursé ma leen mais ça pas yéen ñi ñëw di ma seet si du gis ngeen kayit bi luñ ci bind ñu ne ma waaw yaa nekk ci dëgg ñi fi ñëwoon ñoom wax loolu yaa nekk ci dëgg waaye foog nga dem ba fële ma leen waa baax na dinaa dem sérieusement parlant ma nelaw yeewu jékki-jékki gis ko affaire bi sur la une mu graaw lool ku ne di wax mais comme baaxoo ma wax ak tontu ma daal di jàpp sama njàmbur dem liggéey yi te xam ni dix mille euros fu ma fekk fa la may bàyyi ma woo suñu avocat bi nekk fii mu daal di bind këyit def lépp li ko war yëkkati dix mille euros jox leen ne leen léegi ok yéen a ko joxewoon man waali balaa ko Seck mayaat naa leen ko te yàlla xam na ni waa jooju équipe bam ñu ngi may seetaan bu ñëwoon ne ma ah man de maa la bëggoon tëgg waaye damaa toll ci diggante li ma joxe woon soomu billaay bu ma ko ñaanee ma may ko ko barki yonent bi waaye nag ni mu ko defee moo xaw a ñaaw en plus que on sait tout parce que fii àdduna la yëg nañ lépp yëg nañ lépp ñi fi jot a ñëw ak ñi wax demal porter plainte ñi ko boosté li xew yëpp yëg nañ ko